xaar ci sponsoriser làmb mbaa mbaa mbaa football doo leen doo leen doo leen doo leen ko gis euh, indi na indignation ci biir population bi askanu làmb ak askanu football ñu ci bari yëkkati nañ ci seen seen seen baat mais dégguma euh, kenn euh, ci cadre wala kilifa yi Pastef bu taxaw leeral da ngeen di souscrire ci ci déclaration da nga ci déclaration boobu. waaw xam nga man may mun a je suis pas le porte man du ma porte parole gouvernement. mais yaay porte parole Modap. waaw Modap nag ak gouvernement du benn. waaw mais ba Pastef nga bokk. waaw léegi man dinaa ci joxe sama xalaat en tant que citoyen. Mhm. xam nga Birame Souleye maa ngi koy nuyu au passage parce que biram dafa bokk ci pilier wu projet bi bokk ci ñi xeex ci moment gën a jafe. kon kooku dafa am mérite affaire bi tamit légitimité historique dafa am solo ci politique te moom am na ko maa ngi koy nuyu au passage vraiment di ko ñaanal lii ñu ko dénk mu am ci ndam te am naa ci yaakaar ni dina ci am ndam mu des nag réew moom ku ko bëgg a képp koo xam ne nii rek ma ngi ca biir réew ma ak fonction bu mu mën a yor yow yaa am responsabilité pour satisfaire ko yow mi bëgg a gérer réew moo xam de def làmb wala muy def football wala muy def leneen loolu du débat loolu képp ko parce que loolu li lay wan du débat dañoo jël ministère boo xam ni dafa yor wàllu woowu. amoon na fi ministère de la de la jeunesse et des loisirs non dama lay wax bi amoon na fi ah. de la jeunesse. Ah. Euh, et des loisirs. Mm-hmm. Euh, jeunesse culture. Mm-hmm. Euh, loisirs. waaw ah. mm-hmm. kon ça veut loolu du débat xam nga. biiram jàpp naan ci li mu bëgg a wax ci li ma jàpp déggee ci waxam mooy nañu dem ci farata farata mooy ñu fexe ba li ñu sénégalais yi di xaar ñu ñu ñu teg débat yooyu ci taabal ci football du farata lamb du farata waxul waxul lool de. non da ne dafa ne nañ dem ci farata. man lool laa dégg ci wax waxam xam nga ne nga wax ni. moo tax ma rebondir ma ne la ah, football du farata selon yow lamb du farata. non non man waxuma lool. man kay hmm. lii ma wax nii boo ko dégloo rek di ko xam. nee naa la ci biir réew mi képp ko yor réew mi bëgg koo développé mënoo développé réew mi te doo wax ak waa làmb parce que waa làmb ci réew mi lañ bokk di ay citoyen bokk tamit ci jàpp ci xeex bi man xam naa ay mbër yu ñu ngi ci làmb ji dañoo jàpp ci projet maa ngi ci nuyu ku mel ni Tafa Mbër ku mel ni Ama Baldé. non au-delà de votre projet. Ah, làmb làmb c'est une activité économique c'est une activité ludique. may mun xam nga man. non bul ci sóoraale ñi ñi xeex seen projet bi rek. waaw mais may mun Basiru nekkul Basiru nekkul président waa projet bi rek. non dama bëgg a wax ni ñi jàpp ci xeex bi laa bëgg a wax façon ci làmb ji dañ cee bokk. te man ñi ma dégg ñu wax ci ñëpp dañ cee wax ak responsabilité dégg naa ku mel ni. Gris Bordeaux mu wax ci wax bu dal wax bu correct waxul nit wane ni nit ñi dañu war a am tolérance nit mënul di wax fukki wax mu baax maanaam fukkeel ak benn ba ñëw juum nga bëgg koo def débat. li ma ah Birame Birame Souleye nag c'est un habitué des faits. ma daaneel ma daaneel. ma daaneel Birame Souleye nag moom. dérive verbale boobu c'est un habitué des faits. waxtaan bi bàyyi ma daane sama logique. yow dama non bureau moom c'est un ami qui est bëgg a wax lii la réew mi kenn mënu ko tabax te doo wax esport bañ nañ ko ba dañ ko wutal ministre boppam kenn mënul tabax réew mi te doo ci boole waa làmb loolu mooy li leer mooy information bi bi nga xam mooy à la une léegi nag mu des nit léeg-léeg mën na wax ak émotion ñu nangul ko nii nit la dafa juub émotion waaw yow daf lay dal ministre de la république déedéet ministre de la république du nit kilifa non kilifa du juum ma ne. Eh, nit da ngay juum. waaw mais kilifa. kenn permettre ko muy waxee muy waxee ak ay émotion am. non dama la bëgg nit mënuloo mënuloo am la dignité mënuloo am la dignité ministérielle. nga bëgg ñu ne da ngay waxee émotion. ça veut dire que matoo nga loolu man li ma bëgg a wax lii may wax nii xam-xam la bu leer. nit ñun li ñu arab yi jàngal mooy summiyal insaanu ala kasrati nisyaanihi nit dañ koo bind ci muy gaaw a fàtte. nasiya bi bind fàtte ci la ci la insaan jógee nul ne parfait ku mat sëkk amul il faut sénégalais yi am tuuti tolérance nit du nit bu juumee da xool intation lan la boo gisee ci diine sax diine li ko ëppal solo mooy yéene innamal amalu binniyaat foofu laa bëgg ñu ñëw fa yaa ngi dégg biram sule bi daan wax junni wax ñuy tàccu hmm? tey bu waxee benn wax ñu gis ni wax bi d'accorduñ ci dañuy jàpp ni dafa juum imam Dramé bi daan wax junniy wax ñuy tàccu bu juumee dañuy jàpp ni dafa juum foofu laay woote. kon daal dafa juum ñu am tolérance man daal li ma gëm man imam hmm. réew mi moom ku ko bëgg a tabax secteur bu mu mën a doon ci réew mi di nga ko dugal ci développement fexe ba génn leen ci jafe-jafe yi ñu nekk indi ci ay solution te làmb ji ay sénégalais ñoo ci nekk ñoo xam ni kenn gënu leen a dëkk ci réew mi débat bi nag fi ñu ko yóbbu àggu fi te yaa ngi wax waa làmb bul jaawale nag ay nit ñuy wut buzz ak waa làmb ñan ñooy wut buzz. non man ñi ma dégg ñu ci wax buzz la wut. ñooñu hmm. dañuy politique ko ñan ñooy wut buzz. man am na ñoom wax nañu ci. non ci wax si am na am na si am na ay. Ah. ay ay reporter sportif. wala wala loolu mooy démocratie mais pourquoi xam nga loolu mooy démocratie. non biram dafa dafa jaawaarle distraction ak divertissement. xam nga yow daal dafa xamul lan mooy RSE dabal nga visiter sa ministère boobu sax dafa am RSE. waaw ah, xam nga sa ministère boobu dafa am RSE. ci RSE la ñuy jàppale. xeer yi ngay yóbbu ci biram laa d'accord xeer yi bàyyi ko biram daal li ma la mën a wax mooy. mooy mooy na revisiter liste notre histoire biram day di biram dafa am mérite xam nga lu tax. ah man damay fàttaliku ci moment yi gënoon a jafe. Ousmane bi mu nekk ci kaso bi dañ daan gersu di ko gis assemblée bay gis nga taxawaay bi mu fa am est que loolu yëpp tey ah, ay juróomi nit yoo xam ne bi ñuy xeex gisuñu leen dañuy tax ñun ñu toog ci plateau yi. Eh, na bàyyi doo xeex xool plateau yi di wax di wax ci biram naka su dul. mais na bàyyi doo xeex xool biram yow daal li am solo mooy. doxalal doxalal te gëm ni ah? patriote yi ñun sa ginnaaw sénégalais yi ñun sa ginnaaw te ministère bi ñu la dénk dafa bokk ci Sénégal compté pour développer réew mi mooy le pétrole et le gaz. waaw ministère super important gëm dina fa def résultat. Ah? parce que biram loo mën a wax liggéeykat la. Ah. waaw non liggéey ah, ku baax la waaye na buy wax na bàyyi di waxee xol bi. moom day waxee xol la rek. Eh, xam nga may mun a il faut ñu àgg ci Sénégal ni nit ñi duñu ay malaaka nit ñi duñ ay prophète ay nit lañ dañuy juum et ñu am tolérance c'est important sénégalais yi il faut ñu am tolérance gis nga. ñun de li ñu yonent bi saay salaam jàngal li tax mission mu réussir bokk na ci tolérance yonent bi yàlla dane ko fa bi ma rahmatin min allaahi linta lahum wala kunta fazzan xaliza al qalbi lan faddu min xawlika faafu anhum mu ne ko boo nekkuloon ku am yërmande ku am tolérance ah, di jéggale di yër di baale kon yow sa mission bi du agsi fii waaw ah, waaw il c'est très important nit ñi am tolérance